ci ndoxteelu émission bi. ni tey jii nag euh, lu ñu war a waxtaanee mooy euh, syndicalisme ak euh, lii di religion musulmane. Mhm. xam nga parfois di am polémique. Mhm. wax ji bëri na ba tey jii nag ñu daal di invité kii di Moustapha Signane. Mhm. nekk secrétaire général syndicat des enseignants ñi yëngu ci wàllub langue arabe. Imam Moustapha ñu leen yoo ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Mamour ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñu bokkal plateau bi. Euh, di ñaan borom bi subhaanahu wa taala li ñu fi dajale ñu mën ko mottali. def ko ni mu waree nit ñi mën cee jëriñu rawatina ñi nga xam ne ñu ngi si suivre suñu télévision di Walfadjri. d' accord euh, tey ji nag ñoo waxtaanee lii di syndicalisme ak euh, religion musulmane ñu gis ne nag mu doon la nga xamante ne d' syndicat bu ñu koy taxawal rek day fekk problème moo am ci fa nga xamante ne fa ngay liggéey waaye tamit mu doon la nga xamante ne euh, code du travail may na ko liggéeykat bi pour euh, ngay euh, am maanaam entreprise wala fi ngeen di nekk fi ngeen di yëngu ngeen am seen syndicat. tey jii nii est-ce que mun nañ xam ndax diine côté boobu dina ànd ndax liggéeykat yi pour ñu mun a créer leen di syndicat. waaw jërëjëf soxna maam xëy na bala ñoo ñëw ci syndicalisme ak. diine euh, dañuy njëkk a def benn laytaay boo xam ne moo ñuy may lan mooy indi syndicalisme euh, boo waxee syndicat da ngay wax liggéey donc boo waxee liggéey da ngay wax barab bi ñuy liggéeyee boo waxee barab bi ñuy liggéey da wax li ñuy liggéey boo waxee lañuy liggéey dañuy wax kii liggéey donc yooyu yëpp boo ko doon tënk da ngay wax ni mooy monde di travail euh, loolu loolu nag lislaam daf ci wax lu baree baree bari jëf ci lu baree baree bari su ma waxee lislaam damay wax ni alquran damay wax ne sunu yonent bi sallallahu alayhi euh, li tax ma wax loolu mooy yàlla li mu wax ci alxuraan borom xam-xam yi di ko nettali fa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum euh, liggéey leen jëf leen ñu bari jàpp ni liggéey leen jëf leen dafa yem ci julli dafa yem ci woor dafa yem ci joxe azaka dafa yem ci dem màkk wala saraxe loolu lañ jàppee jëf fekk lislaam romb na loolu euh, li tax mu romb loolu mooy jëflante doomu aadama ak doomu aadama boo ko defee ni ko lislaam santaane day nekk jëf day nekk jaamu yàlla day nekk liggéey euh, jëflante boobu nag day lalu ci jikko te yaakaar naa lislaam bu ñuy wax lislaam jikko moo tax ñuy wax ñuy wax hmm. lislaam hmm. dëgg la ki sos barab bi ñu toog hmm. bari na lu muy jàng baytu boobu innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhum zahabat axlaaquhum zahabu bu ñuy wax nation bu ñuy wax aw xeet bu ñuy wax ab ab société jikko ji ñu làmboo moo tax ñu leen di tudd bu ñu amee jikko ju baax rek danañu siiw mais bu ñu amee safaan aussi danañu siiw ci leneen. donc kon loolu mooy laytaay boo xam ne mënta ñàkk ñu xam ko ci lan mooy liggéey. Mhm. donc liggéey boobu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wan ñu ne ku nekk da nga ko war a def moom mu njëkk cee wanewu bi mu nekkee gone tout tànk ci waxin liggéey na lu mu doon liggéey da doon sàmm. Mhm. dafa jàng ak càmm ba man ko di ko def. bi mu ci jógee aussi liggéey na liggéeyu commerce te liggéey yooyu mu liggéey yëpp dafa bëgg wan nit ñi bëgg a wan moom jullit yi ne leen doomu aadama warta lekk lu dut bu amul benn pexe su amee pexe war ta lekk lu dut li loxoom liggéey maanaam ñaxam mu ne liggéey mu ne lekk gi gën a lew ci lekk yi mooy lekk yont yàlla daawuda ndax moom dafa daf doon lekk ci aw ñaqam maanaam da doon ñaq pour mën a am lu mu lu mu lekk wane aussi ne liggéey ba aussi lu war a nekk la su ma soon ànd ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu génn benn gazwa wala benn sariya euh, ba ñu war a lekk day am ñu ne ñun ñooy loj gëléem gi ñu ne ñooy fees ñi ne ñooy togg ñu ne ñooy séddale moom danaan man may taxani wan leen ni moom warta toog rek ñuy def di ko jox mais moom il faut mu participer donc il faut mu liggéey il faut mu yëngatu ak ni mu toll ak ni mu tolloon mais da doon nangoo liggéey loolu loolu moom yaakaar naa même boo ñëwee suñu jamono suñu kilifa diine Sénégal li ëpp ci ñoom dañuy liggéey ay baykat lañu ñi ay commerçant lañu ñi ay ñi ay lañu donc mhm. amul kenn ci ñoom ku toog faste ay loxoom di xaar ay taalibeem moom indil ko kon liggéey asaas la baas la benn cës benn cëslaay la benn farata la comme ni ngay jullee di ko woore noonu nga war a liggéeyee léegi nag liggéey boobu islaam ne la liggéey bi dafa war a sel sell inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu yàlla bëggul l'homme aux douze métiers yàlla li mu bëgg mooy nit ku am benn métier mën ko gën ngaa bari na nekk ñaar nga mën ko parce que li mu bëgg mooy li ngay liggéey charte bi la islam bi njëkk a tegal mooy na nekk loo mën na nga am compétence pour def ko. xarañ ci xarañ ci islam bëggul man-man lu. islam li mu bëgg dafa bëgg looy def danga nga koy mën. donc moo tax mu ne. inna allaha yuhibbul abdal muxtarifa wa yakrahul abdal battaala yàlla ki mu gën a bëgg ci jaamam yi bokk na ci jaam bi am métier ba noppi di ko jëfandikoo. wa yakrahul abdal battaal bu dee am na jaam bu mu jéppi bu mu bañ mooy jaam bi am métier ba noppi fas tey loxoom. na yàcc ne yàcc na yesar bu dee am na ko yàlla di bañ kooku la yàlla gën a bañ mooy ki am métier donc kon l'islam lim la bëgg a wax mooy ku nekk jullit mënoo ñàkk métier jullit waroo ñàkk métier il faut nga am nga am métier donc loolu mooy base bi loolu mooy asas bi nga xam ne chaque musulman war na xam ne dafa war a liggéey beneen bi mooy liggéey boobu ngay liggéey nag lislaam indi ay charte ne yii dafa war a daje ci ab liggéeykat bokk na ci mu ne ki ngay liggéeyloo na xam li nga koy fay bala moo soobu ci liggéey bi naxam ñaata lay fayeeku bala moo sóobu ci liggéey bi kooku benn la. ñaar ngeen waxtaan ci bu juboo ci donc mooy contrat yi nga xam ne moom la gars yi di signé. beneen bi mooy na xam lan lay liggéey. Mm-hmm. il faut mu am benn cahier de charge bu leer boo xam ne moom lii la war a liggéey. liggéeyam bi sàngam lay commencé heure sàngam heure sàngam lay jeex mm-hmm. bi sàngam lay commencé bi sàngam lay jeex mm-hmm. bi sàngam wala heure sàngam moo ko moom mën na cee noppalu mm-hmm. donc muy cahier de charge boo xam ne condition yi ñuy bind ci contrat bi dafa war a leer islam aussi loolu la santaane loolu la wax benn bi mooy mu ne yow mi nga xam ne aussi yaay signé contrat boobu moo xam écrit la wala verbal la yow aussi da nga war a respecter sa contrat da nga war a respecter cahier charge bi nga xam ne moo dox sa diggante ak ki nga xam ne moo lay liggéeyloo moo xam privé la moo xam public la di xëy da nga di xëy heure di wàcc heure mm. tâche yi nga xam ne aussi moom lañ la jox nga di ko joxee comme ni nga ko war a joxee mu wax ci benn xadis ne man naa rachana falaysa minna képp koo xam ne jéem nga ñoo nax jëm nga tricher ci liggéey bi nga séq ak ñun bokkatoo ci ñun maanaam nekkatoo jullit mm-hmm. beneen bi aussi mu ne yow mi koy liggéeyloo am na aussi lu la war bokk na ci yow li la war ki ngay liggéeyloo na nga ko sant lu mu man xadamukum ixwaanukum laa tukallifuhum illa maa yutiquun wa ida kallaftumuhum maa yutiquun fa ainuhum mu ne ki ngay liggéeyloo sa nawle la sa nawle nag danga koy jox danga nga koy liggéeyloo lu mu man nee na même boo ko liggéeylooyee lu mu man nee na bul ko bàyyi rek mu liggéey ko seen contrat lii la nee na léeg-léeg dim dee ko ci dimbali dëgg la. dimbali ko nga ciy dimbali mën na mën na nekk nga ñëw taxaw ko mën na ñëw weer de ngeen d'accordoon ci ci sa ci salaire nangam weer de nga am loo ko yokkal. maanaam motivation pour gën ko motiver. pour mu gën a fonk liggéeyam. Mm-hmm. yooyu ci tënk ay charte la yoo xam ne islam daf ko teg. Mm-hmm. léegi nag mu des. lan moo indi kon syndicalisme yooyu ma wax ak yu ma waxul bari naa mais comme mm-hmm. comme du du voilà voilà temps bi mooy xat léegi nag yooyu pour ñu joxe ko il faut mu am ku taxaw nekk benn sentinelle ki ku njëkk a def mooy le premier syndicaliste mooy nabiyullah muhammad sallallahu alayhi wa alihi ndax kooku moo wax ne aatul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu nee na ki nga signal contrat di ko liggéeyloo nee na nanga ko fay balaa ñaxam di fendi waaw te balaa ñaxam a fendi te loolu mooy syndicalisme ko fay loolu non loolu ci buntu syndicalisme yi voilà balaa ñaxam fay euh, moom fendi nang ko fay loolu benn la. beneen bi mu ne boo koy liggéeyloo na nga ko ci dimbali dimbali googu daf ciy bokk del dee ko defal ay formation yoo xam ne da ngay koy defal li ñu tuddee renforcement de capacité maanaam xam-xam bi mu amoon ba indi ko xam-xam day développé wu. mën-mën dafay dafay développé wu. bu njëkk ñi doon liggéey ci usines yi nga xam ne euh, c'est des ay manuel lañ doon liggéeyee léegi xam-xam dafa développé ba liggéeyu loxo bareetut léegi ay machine la ñuy liggéeyee. Hmm. fekk nga am ay employés yoo xam ne manuel nga leen jëlee woon nga dem ba sa entreprise changé. ba léegi ñuy liggéey ay machine yow borom yow ki moom liggéey bi da war a jël sa liggéeykat yooyu former leen ba ñu mën a jëfandikoo machine yooyu. Hmm. donc yooyu sant yow en tant que ku ñuy ku ñuy liggéeyal kon kii taxaw di wax liggéeykat bi di ko ko fàttali ne ko kii da ko war a fay kii da nga ko war a war a jox prime. Mm. kii da nga ko war a tàggat. kooku loolu mooy syndicalisme. Mm-hmm. kon tey mun nañu ne aussi exploitation bu amee mën na tax ba mu am ay bañkat. voilà mun nañu ne peut-être dañuy ne ay bañkat sax mais ñi nga xamante ne peut-être ñoom dañuy bëgg ñu sàmm ak ak. léegi loolu li koy indi mooy sànq da nga wax code di travail. Mm-hmm. code boobu nga wax li ëpp ci code bi. li ëpp ci législation international ñi ngi ko jëlee ci l'islam d'accord li ëpp ci code li ëpp ci législation ñi ngi ko jëlee ci l'islam ma jox si ci ay ay ay exemple mhm. léeg nga gis kuy liggéey ñu jox ko benn bulletin de salaire mu am ay rubrique mu am fu ñu ko bindal allocation familiale mhm. mu am fu ñu ko bindal allocation familiale ne ko bu amee doom dañ koy joxe dañ koy joxe loolu loolu islam moo ko njëkk a instauré Ibnul Khattab moo njëkk a rëdd li ñuy tuddee allocation familial pour soldaar yi nga xam ne ñoo doon dem di jihaad yi bàyyi ay doom gannaaw ak soxna mu bindal leen loo xam ne day wuuteeg seen salaire ba ñuy jox seen borom kër loolu fan lañ ko jëlee islaam moo ko moo ko njëkk moo ko njëkk teg xëy na après bi histoire doxee les grecs lañ ko jël liggéey ci ba ba européen occidental yi occidentaux yi liggéey ci ba def ko ay règlement ak ay loi loolu benn la beneen bi mooy li ñuy tuddee retraite islam moo ko njëkk a samp pension de retraite islam moo ko njëkk a samp maanaam fi mu ko njëkk a sampee daf ko commencé même ci jaamu yàlla yi islam daf dafa wax ne jaamukatu yàlla bu nekk ndaw di jaamu yàlla li muy mën ci jaamu yàlla bu demee ba tële ba ay cëram nangoo tut mu def nam ko mane lañ ko daan fay ba mu koy man lu lu ni toll lañ koy fay même bu tëlee maanaam war ñu ci wàññi. dara mais fii dañuy gis dañuy wàññi. d'accord mooy xam nga texte yi ay texte doomu aadama la. yoo xam ne ñoom ñoo ko bind gën ñu génne ci yàlla. mais bu ñu doon appliquer ni ko islaam bëggee woon. le même salaire bi ngay fayeeku bi ngay liggéey en activité montant net moom nga war a fayee ko boo demee boo boo demee retraite bu ñu appliqué woon islam. Hmm. loolu loolu loolu laa wax mais comme appliqué ko dañuy jël ci li fi nekk beneen bi mooy Omar Ibn Khattab Omar ibnu ibnu Abdul Aziz ñoom ñaa la jël comme ay exemple dañoo nekkoon ay liggéeykat maanaam di gu di gu di gouverner kenn ki am bis ñu fekk ko muy jooy maanaam nu mu war a liggéeyalee ay nitam ñu ne ko looy jooy yow yaay amirul mu'minin mu ne li may jooy mooy maa ngi fii ci Médine ëllëg yowmal xiyaam bu amee gëléem goo xam ne da jóge Cham mooy Syrie actuellement di ñëw ci yoon wi mu fakkatalu ci wenn xeer ba jeng wala mu daanu ëllëg yàlla dina ma laaj yow Omar lu tax defaroo woon yoonu gëléem yi ba duñu fakkatalu moom mu xalaat gëléem mi ngi gëléem la xalaat lu tax defaroo woon yoonu gëléem yi ba duñu fakkatalu lu tax gëléem ga fakkatalu mu ne su yàlla laajee ëllëg lan laay tontu kon nga mm-hmm. xam ne ñooñu ragal donc kon kooku waxuma la doomu aadama yi la war a defar seen tali ak seeni yoon mais mi nga xalaat gëléem gu fakkatalu ci xeer lu tax toppaloo woon xeer wi lu tax defaroo woon yoon wi ba gëléem yi ba jëgg yi bu ñuy dem du ñu am du ñu am jafe-jafe donc respect ñu am ci animaux yi sax voilà donc noonu la mm-hmm. képp kuy liggéeyaloo nit war a jàppee ab liggéey liggéeykatam léegi nag yooyu di ay principe ci lislaam yoo xam ne kiy liggéeyalu mën na ko bañ a xam kii liggéey aussi yi ma wax ci condition yi mu war a liggéeyee mën na ko bañ a xam il faut mu am un syndicaliste il faut mu am kenn koo xam ne daf koy day nekk benn sentinelle daf koy fàttali ki yore liggéey bi daf koy fàttali même ki nga xam ne boppam mooy liggéey que yow kat am nga contrat boo signé ak entreprise sàngam war nga ko respecter parce que léeg-léeg nga am sa benn militant wu ci sa syndicat koo xam ne moom bu ñëwee di la indil ay jooyam ay jàmbatam. soo toogee moom ngeen def entretien da ngay xam ne moom moo tooñ. waaw te te moom dafa jàpp ne dañ koo tooñ da ngay xam ne moom moo tooñ. yow en tant que syndicaliste li nga war a njëkk a def mooy appliquer la yonent soo tam waxoon. unsur axaaka zaliman aw mazluman dimbalil sa mbokk sa militant. bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko waaw buñ ko tooñee xam nañu ni ñu koy dimbalee mais bu tooñee nag mu ne bu tooñee da ngay tëj ci loxoom ne ko yaa tooñ donc yow en tant que syndicaliste bul far ak say militant rek dee moo tooñ nee ko yaa tooñ yaa xëyul heure wala boog yaa wàcc avant heure wàcc wala boog yaa respecté wul tâche yi nga xam ne moom nañ la jox tâche yi voilà su yow su boobaa da nga koy indiwaat ba raay bi du du jël sax nga dem ci ci entreprise ba di dem di yóbbu ay doléance gis ne aussi parce que yaa ngi ne tey mun nañ ne dëkk tubaab yi lu ci gën a bëri ci ni ñuy doxalee euh, code du travail ci islam lañ ko jëlee lañ ko tibb euh, daal di euh, togg mhm. teg mhm. yàq ko mhm. léegi tey jii ni ñun gis nañu ñu ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew jullit yi am na ci ay entreprise yi nga xamante ne tey bu amee ay syndicaliste waxatuma nag ki koy jiite d'habitude mm-hmm. moom dañ koy dàq. Uh-huh. loolu tey lan ngay wax njiit yooyu parce que ñoom dañuy nekk kii euh, moom moo leen di ñëw sonal. Mm-hmm. amaana bu ñu ko fi bàyyee mbir yi du dox léegi faw ñu daal di ko écarter après ñu nekk ci ginnaawam ñëpp dañuy mujjee toog. Mm-hmm. léegi ku mel noonu liñ koy wax mooy na na ragal yàlla. ci ñu ko yàlla dénk parce que ku nekk dafa am ñu la yàlla dénk li ma wax sànq ne ñu ngay liggéeyaloo say nawle lañu. ñi ngay liggéeyloo say say mbokk lañu. ragal yàlla. deux bu ragalul yàlla ba bundu xataal délégué boobu délégué syndical boobu wala boog syndicaliste boobu nekk ci liiwam ba dàq ko loolu mën na ko jural benn revenu boo xam ne maanaam koomam yokku yokkute goo xam ne jëm si ci moom àq la woon bu waroon a dem ci liggéeykat yi kële mu dàq doon ko kaas moo tax léegi kenn kaasatu ko moom mu continuer di leen exploiter na ko xam ne moom kon mu ngi boole ci am-amam ci koomam yëfi jàmbur mi ngi lekk àqu jàmbur boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam buur bi subhanahu wa taala dina ko laaj àq sàngam bi nga ko lekkee ndax ndax yan di soson dafa wax ci benn xadis ne est-ce que xam ngeen kan mooy ki perte ata ata atadruna manil muflis est-ce que xam ngeen ki perte mm. ñu ne ko ki perte mooy ki doon def commerce ba yàgg mu daanu capitalam daanu mm. ki mooy ki perte mu ne leen déedéet ki kii pertul ki perte mooy ki ñëw yowmal xiyaam fekk daana julli daana woor daana azaka mais am na ku mës a dóor am na ku mës a saaga am na ku mu a lekk àqam loolu boobu moo boobu moo ma ci intéressé am na ku mës a lekk àqam ak lu àq bi tuuti tuuti tuuti uh-huh. yàlla da koy woo convoqué ko na ko àq sàngam de ameel nga ko diw te parfois sax yàlla du xaasa léeg-léeg fii la koy def non fii sax euh, dafay ah. teel mais léeg-léeg da koy bàyyi ba fële àq sàngam ameel nga ko diw mu nekk nakal léeg-léeg diw de amee na loolu la ak sàngam. léegi loo bëgg bi am fii de. Mm. voilà léeg-léeg suñu borom def lancement bi fii ci kaw suuf. léeg-léeg mu def fi lancement bi mais dama lay indi rek bay bay xew fële. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam wane ki perte. Mm-hmm. mu ne ko léegi loo bëgg mu ne ko na ma fay sama àq bi mu jëloon. ñaata la woon mu wax. alaaxira amul amul yenn amul CFA amul dollar amul euro. li fa am mooy tiyaaba ak bakkaar. léegi mu ne ko loo bëgg mu ne ko man li ma bëgg mooy ay ay julleem li mu mës a julli yëpp tiyaaba ji laa bëgg nga nga faye ma ko ñu convertir ko ci ci ko waaw ñu jël julleem li nga defoon lépp jox la teggil ko jox ko kee keneen ñëw wax leneen même bu yemoon ci kooku rek dèjà da ngay perte parce que boo demee ca balance ba ñuy peser dootoo am yiw sa yiw da nga ko fay boo lekkoon fii ci kaw suuf. 10 000 tiyaaba mooy 10 000 wala nga joxe ko wala nga wax ko ko ci pour pourcentage yonent bi ne na kooku mooy ki perte mooy ki perte mooy daana julli daana woor mais mës na lekk àqu benn jullit wala àqu benn nit même bu dul jullit benn nit. kooku ñëw taxaw ci kanamu yàlla ne ko yàlla yow yaay ki maandu atteem ak sa jaam bi lekkoon na sama àq mm. te léeg-léeg mu lekk sa àq sax nga xam ko mais léeg-léeg mu lekk sa àq te xamoon ne lekk na ko mais yowmal xiyaam yàlla moo lay éveillé loolu nag laa bëggoon laaj fàttali la ki nga xam dañoo lekk àqam te xamu ko bu taxawee yowmal xiyaam yàllaay yeesal xel mi mu daal di fàttaliku mm. ci lay daal di def eh. plaidoirie bi daal teg ci taabal ji yàlla moom adil la adil la su man donc pour tënkal la kon un syndicaliste mooy kuy fàttali ab liggéeykat mooy kuy fàttali kuy liggéeylu ñoom ñaar li ñu séq nañ ko respecté. kon moom syndicaliste bi ci boppam. rôle imam la day jaamu yàlla ci ci loolu muy def. war a jub aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. war a donc jub léegi ñu gis ne aussi. Mm-hmm. parfois euh, syndicaliste yi. léeg-léeg bu ñu demandee seen i droit après benn instant soit ñu def benn sitting wala manifestation wala en tout cas dinañu wane seen mer daal. sa dépend ci nu ñu koy defee soit doxub ñaxtu wala toogaanu waxtaan. Euh, takk ay brassard rouge et cetera mais dinañ gis parfois ñenn ñi dañ ne ay manifestation baaxul loolu. non non non un buy na ba buy ñaxtu moo xam dafay grève mhm. moo xam dafay takk brassard rouge moo xam euh, dafay euh, dafay def moom grève de zèle mhm. dafay moo dafay def marche na ba na tënku ci règle ak loi yi nga xam ne moo ko def un syndicaliste. bañ a yàq bañ a bu mu yàq non même même règle sax daf ko war a respecté. ma jox la benn misaal man ci li ma bokk. Mhm. man enseignant la maa jiite syndicat SYNLAS FC maanaam syndicat bi yore wàllu njàngaleem arab ci réew mi bokk ci les sept syndicats les plus représentatifs. Mhm. léegi texte yi daf la wax ne la. booy bëgg a dem grève da ngay bind benn préavis boole ko ak say doléance yóbbu ko ministère bi lay liggéeyloo par exemple da nga ko yóbbu ministère fonction publique déposé ko problème sàngam sàngam sàngam sàngam sàngam léegi damaa bëgg nga wax ci nga jox ko ministre de la fonction publique léegi li la tax yi may mooy moom am na diiru weer pour woola ngeen waxtaan ci loolu bu ngeen ci bu la bu weer wi jàllee te oowu la tax yi ne la am nga droit dem grève d'accord mais doo xëy benn bis rek. ne suba suba suba gars yi dañuy dem grève texte moo la ko tere donc loolu loolu mënoo ko am na solo jërëjëf la xaj je mhm. pense que leeral na ko moom euh, Moustapha Signan nekk secteur général syndicat des mhm. enseignants ñi di yëngu ci euh, jàngale li di làkkum arabe mhm. kon Fatou xam nañu je pense que jàng nañ ci lu bëri parce que tey jii wax nañ ni syndicalisme dafa doon la nga xamante ne diine euh, sant na ko dégli na ko nit ki mu def def ko mu yëngu ci kon kenn ku nekk ci ci jullit war nga doon ko actif daal mm-hmm. bu dee jigéen nga nga doon ko actif maanaam nga participer ci pour développement sa réew mais aussi nga participer pour ma tënk rek benn uh-huh. euh, lii bu ma bëggoon mu mm-hmm. jàll tuuti rek mm-hmm. une minute waaw gis nga l'islam bu ñu ko bu ñu ko appliqué woon wala du ñu am problème xam nga xam nga la wax ci ci kii liggéey daf ko teg ñetti charte ne yii ki koy liggéeyloo moo ko ko war a assuré man kaana lanaa aamilan wa laysa lahu dabba fal yattaxis lahu dabba nee na boo liggéeyloo nit te boo liggéeyloo nit te amul oto jox ko oto bu koy yóbbu jox ko dabba ju ko yóbbu fa muy liggéey boobu benn la mu ne man kaana lanaa aamilan wa laysa lahu maskan fal la lahu maskanan mooy lan mu ne ki ngay liggéeyloo bu dee amul kër na nga ko utal kër gu mu dëkk muy ñaar ñetteel bi mu ne man kaana lanaa aamilan wa laysa lahu zawja fal yettaxis lahu zawja mhm. nga nekk góor guy liggéey ci entreprise bi te amoo soxna ah. nee na nee na ki lay liggéeyloo ah, na dox pour nga am soxla na dox pour nga am moom soxna bu dee jigéen na dox pour nga am borom kër parce que yooyu il faut a daje pour le travailleur mën a nekk ci condition yu baax bu mën a liggéey bu feebaree ñu mun ko jàppale ci faj mi bu ci benn manqué rek bu ah, mën a ko jàppale ci faj mi nag non dafay dugg ci fa aynuhum maanaam faj bi mooy ki ngay liggéeyloo boo ko liggéeyloo lu mu man léeg-léeg dee ko dimbali dimbal bi day su feebaree nga participer ci pajam lii mooy islam mais bu ñu ko appliqué lu ñu am problème ñàkk ko appliqué moo ñu indil jafe-jafe am na solo daal na xel yi daal xibaar bi rek lii ne daal taal na xel yi donc je pense que kenn